ah seen bokk seen xarit mu Mouhamadul Bousayri di euh, rafetlu vraiment euh, seen ay euh, musharakaat seen ay participation ci groupe bi ak seen kàddu yi yi ngeen di rotal muy ay kàddu xam-xam maa ngi koy rafetal bu maa ngi koy rafetlu bu baax a baax lool nag lool lool bu ma bu ma limee kenn rek damay juum bu ma limee kenn rek foog ma wax ñëpp waaye lépp lépp daal lu rafet la lool maa ngi koy rafetlu te képp koo xam ne wax nga rek sa kàddu moom maa ngi koy vraiment maa ngi la ci gërëm moo xam nga wax commentaire ci ay euh, durus walla nga am njariñ loo indi loolu lépp ñu ngi la ci euh, képp koo xam ni moom daal dugg nga rek yàlla na yàlla def euh, lépp loo fi wax ci ay kàddu rek araf bu ci nekk yàlla def ko ci ay def ko ay tuyaaba yu bëree bëri waaw euh, ci wàllu wàllu docteur Mouhamed Ahmed loobu ci ci téeréem bi taqdisul asxaab xam nga man damaa amul jotu euh, xoolaat ko sax di ko di ko di ko topp wante li ma jaaxal xaw ma xaw ma nan ndax loolu euh, ndax loolu nit ñi man daal loolu jaa xëy na kon man maa comprendre lu téere bi wala wala boog man maa comprendre lu ma maani man daal loolu jaaxal na parce que lu ma lii ci téere Ahmed Lo bu ma xoolee fan la ko fe fan bu ma xoolee ci suuf li lii mu tuuma daan ni wax ji euh, léeg-léeg nga mu wax daan ni daan ni Firawna sax du wax lii Abu Jahlin du wax lii Iblis sax du wax lii léegi bu ko defee yow boo seetloo xool wax ji ma ngay joxoñ fan la ko jëlee day bind Jawaahirul Maani ma gis jawahir da nga dégg mun la wax ji jawahirul maani ci euh, xaaj juz jukki nangam ci paas na paas nangam fii may waxee yow nii am na benn nas benn texte boo xam ni gis naa am wax ko texte loolu wax wax ju garaaw a garaaw ci ci ci ci ci awliyaaw yi nga xam ne dem na ba jël firawna ak iblis ak euh, sanaa bi du Quraysh ñooñ ñëpp mu teg leen ci kaw maanaam abu jahlin ak firawna ak iblis jël na ñooñu teg leen ci kaw maanaam wàllu yooyu lu tax ndaxte dafa am luñ wax loole ñu wax léegi da ngay gis mu junju am fum mu junju waaye fa muy junju téere bi naa ci am deux heures de xanaa du ma maanaam lépp lu ci baree baree bari dangay gis mu bind ci suuf day wax ab wax ki critique wax ji lool ba takfiir ki wax wax ji nga xool fan la ko fan la waxee li nga gis mu bind jawahirul maani nga ubbi ma maani di xool di xool di xool da mu mujj da ngay tuumaal sa nga ni kon xëy na yow yaa yow ya yow yaa comprendre jawahirul maani wante ay arab la Ali Harazim da dégg Euh, sa'altu cheikhana sa'alna cheikhana sa'altu cheikhana wante doo gis lu xaw a moom li wax ci man dama ni xëy na kon beneen waay moo moo yokk ci téere bi beneen wax wax joo xam ni euh, docteur Ahmed Lo waxu ko bu fekkente ni taqrisul ashxaas moom lañ koy askaneel moo ko bind ay waxaga ca yoo xam ni wax yu rëy rëy la gimiñ nan la ko gimiñ bi génnee parce que dégg gis naa ci ay wax yoo xam ni ñami ñami wax daf leen a dafa ni ñii wax nañ wax joo xam ni wax ji la may waral mooy ñii gëmuñu tawxid rububiya te tawxid rububiya même iblis sax da koo gëm même abu jahl daal di ay ayat quraniya wala in saaltahum wala in saaltahum qul man rabbu samawati sabak wa rabbul arsil azim waaw léegi lii mu li ñii sax gëm nañ ko wante ñoom liñ wax day waral ni ñoom gëmuñu tawxid rububiyya waaw léegi wax jooju mooy ban wax nga xool wax jooju mu la man ci jawahirul maani nga dem jawahirul maani doo ko fekk doo fekk dara dara dara léegi man bëggoon naa Ahmed Lo Ahmed Ahmed ñëwaat ci taqlisul asxaas mu mu wala kenn rek koo xam ne yi mu wax ci taqlisul asxaas nañ ma indil nañ ma envoyé ni ma fii la ko jële ndaxte dama lépp lu mu ni fii laa ko jële bu ma demee foofu ma du ma gis yu bare bare bare bare wax na wax yu garaaw yu baree bare ci taqlisul asxaas yoo xam ni dama koy gis wante bu ma bu ma demee seeti ndaxte ndax damaa dégg mu défendre boppam mu ni moom mësuta takfiir kenn maanaam nañ ko képp koo xam ni gis nga ni nee na fa fa fépp fu mu waxee ni takfiir naa kooku na ko indi waaw léegi boo ñëwee ci moom euh, docteur Ahmed ci ci ci euh, euh, ci page yu téeméer juróom ñaar fukk Euh, benn ci page boobu ci mi almixwaru saani bi ma ngi fay wax ay wax yu garaaw léegi nag wax na lu bare bare boo xoolee téere yam lay maanaam téere lay joxoñ ni demal xool fa jawaahirul maani moom daa benn marja boobu la am wante yi muy wax doo ko doo ko ca fekk wala jawaahirul maani dafa am yeneeni en tout cas nusxa bi ma am tabaa bi ma am nii xool naa ko te numéro bi seet naa ko gisuma ci dara dara dara lu xaw a laaleeg Ahmed loolu li muy wax ci Jawaahirul Maani maanaam loolu loolu tamit bu fekkente ni noonu la demee tuuma gën sa rëy loolu nit ki nag foog nga ragal yàlla foog nga ragal yàlla ci bu fekkente ni bu fekkente ni euh, euh, euh, yooyu muy wax bu dee da koo jëlee ci internet gis jawaahir ma daa daa ni loolu ci maanaam xam nga mën ngaa dugg ci internet jël benn texte texte bi ni la maa ngi ko jëlee ci place sàngam nga jël loolu lépp def sa téere de au lieu nga dem ci téere booba téere boobu ban nusxa te boo ne jawaahir maani la yem ci ban nusxa fan lañ ko nusxa bi ban tabaa la tabaa bi ci fan la nga nga nga wax lu leer nañ wante dama cee gisul dara dara dara dara man maa juum wala nu mu demee Ahmed lo ah, docteur Ahmed di ànd ak di ko respecté lool wante dégg naa ay wax yu garaaw a garaaw yu rëy yoo xam ni waxuma la takfiir nit wante koo xam ni fira ne nee nga ma kenn wante wax wax yoo xam ni Firawna a gën Abu Jahl a Iblis a gën te takfiru kon yow kooku nu nu kooku waxuma léegi fii xanaa kon fii aw naag Abu Jahl Iblis ay juy lañ bëggoon naa ñu leeral ma ci lu mel nii yu bare bëri daal ay ay ay gis naa ci ay njaxas yu bëri ay njaxas yu bëri yoo xam ne bëggoon naa toog moom lool lool lool lool bëggoon naa toog ak moom ba ma demee dakaar am na ku ma wax man ko ni ko damaa bëgg a toog moom. damaa bëgg a toog ak moom comme bëgg ñu toog comme mbag ak rak mbag ak rak du du xuloo du dara man ko yow yii nga wax nii wan ma ko ci jawahirul maani tuux di jàll boo ko gisul ay tuuma la yoo xam ni tuuma yu rëy nekkul yu ndaw tuuma la yu xaw ma na ndax yéen waa groupe bi loolu yéen a ngi koy seetlu euh, daal man daal incha allah lii moom maa ko dig dinaa toog ak moom toog boo xam ni téere bi lañuy ñuy teg man ak moom may laaj muy tontu mu may indil fan la jële wax yu garaaw yooyu waaw maanaam ngërëmte googu ma ma am ci wàllu euh, ndaxte ndaxte ay ay ay tasrixaat laay gis yoo xam ni yaani gisuma ci marjia loolu mooy maanaam maanaam euh, docteur Ahmed loolu loo mooy problème léegi par exemple par exemple am na fu am am na lu mu wax ni ni mu ngi ci jawaa jawaahirul maani léegi léegi loolu da doon wax da doon wax ni maanaam yàlla subhanahu wa taala moom mooy kii dégg lépp moom mooy kii dégg lépp te bu bu ñu bari wax waxandoo àddina lépp doon waxandoo kenn ku ci nekk la ngay wax yàlla subhanahu wa taala dégg goo xam ni amul fu mu yem dégg gu méngoog màggaayam la koy dégg dégg gu gu mat sëkk ak lu baat yi jaxase jaxasoo jaxasoo buñ doon def ay tasbixaat ay adkaar léegi euh, loolu li may wax nii mi ngi ci nee nee na ngi ci jawaahirul maani léegi mu ne nee na Cheikh euh, Ali Harazim euh, di wax nga xam ne ñoom muy nag fa léegi nag nit ñi fa inna amra al aama fi samaai an laa yasmaa illa lafdan waxidan fa ida kasrat alayhi al alfaaf ajaza an tamyisiha léegi nag loolu moom leer na mu ni wasaaliku nee na nee na Cheikh Ñaan Chérif moo wax ni wasaaliku wala Ali Harazim mu ni wasaaliku fi hadihi al xaala mooy mooy waajooju yasmau jamia alfaadi mawjudaati wa tasbi wa tasbixiha fala taxtalitu alayhim nee na lii amul farq yaa ngi dégg amul nee na gis est-ce que gis nga ci farq euh, diggante maanaam li nga xam ne yàlla moo ko melal boppam léegi moom tamit mu melal ko bopp maanaam ni yàlla melal boppam noonu noonu la wàllu boobu waa jooju melal boppam ndax fi mu commencé dafa li am min abrazi mumayizaati taaxuut mooy mooy lan mooy an yad'uwa annaasu ila ibadatihi fa yabu an yabu an yad'uwa annaasu ila ibadatihi fa yabuduhu maanaam daal mooy mooy mooy mooy mooy wàll waaye jooju nga xam ne nee na wàll yu boobu nga xam ne suuf yi boobu nga xam dafay euh, woo nit ñi ngir nit ñi jaamu ko man nag loolu moom man ban ban suufi la fan man loolu gisuma ko fenn wa huwa raadin mu ni taamal ma'i hada alwasf lilwalid واحكم بإنصاف هل تجد فرقا بينه وبين وصف الله تعالى به نفسه يعني léegi nag mu ni wasam'u billahi foofu la commencé léegi daal di ubbi ni léegi loolu mi ngi ko fekk ci jawahirul maani seet naa ko ba sonn gisuma ko fenn fenn fenn gis naa wax dëgg yàlla seet naa ko ba sonn gisuma ko fenn fenn léegi tawxid rububiyya Euh, euh, weddil na ko loolu dama leen a bëgg a jàngal benn benn benn texte ngeen dégg lii tamit xaw ma fan la ko Ahmed Lo Ahmed Lo fa ni dafa ni inna taaddi alfikr inna ta inna taaddi alfikr suufi ala axasi alaxasais alrabbaniya wa fatxahu majal altasarrufi fi alkawni walxayaat amaama alaqtaabi walawliya moom mooy wax wax jii nag Cheikh Ndian Cheikh wax kenn ko moom moo koy wax mu ne wa wasfahum bilqudrati ala kulli shay ba tey mooy wax nee na loolu yaqtadi darurata rafihim ila maqaami rububiya mu ni wa hada shirkun la shirka aqbax minhu لأننا نعلم علم اليقين أن من ضروريات الإسلام وهي أن يعلم أن كل ما في القرآن حق لا لا نعلم علم لا باطل وصدق لا كذب وهدي وهدى لا ضلالة وعلم لا جهالة ويقين لا شك فيه mu ni wa anna hada al asl laa yatimu illa laa yatimu imaanu ahadin wala islaamuhu illa bil iqraar bihi lii moom wax ji salim la kenn werante wu ci mu ni waqad axbarana allahu azza wa jalla fi alquran alkarim bi annahu alxaaliqu الرازق وهو الشافي وهو المحيي والمحيي المميت والمميت وهو المدبر والحافظ لأنه وينزل الغيث wa yaalamu ma fi l arxam mu ni fa mata jaana ahmed loo mooy wax lii lépp lii li ahmed loo lii muy wax yépp amalu ko marja xëy na moom moo wax ay ay ay ay lii lépp gisu gisuma benn marja fu mu ko waxee mu ni fa mata jaana ahadun yuxaawilu an yasifa gayra allahi bi cheyin min dalik alimna annahu laa yaxlu min an xaal ba pare laa yaxlu an xaalati man loolu jaaxam xalaa an laa yaxlu an ixda xaalatayn ndaxte ala kulli xaal mu ni ixdaahuma an yakuna mu ni an yakuna jahilan jahlan murakkaban min nawcin naadirin garib lam yasil ilayhi jahlu sanadidi almushrikin dégg ngeen lam yasil ilayhi jahlu sanadidi almushrikin alqudama lu tax mu ne li annahum kaanu ala ilmin bi rububiyati llahi kon léegi nee naa sanadit sanadilu mushrikin ñoom abu jahl ñoom ñoom ñoom utbat ibnu rabia ñoom shaybat ibnu rabia ñoom uh, uqbat ibnu abi muayt ñoom suf uh, uh, ñoom walid ibnu walid ibnu almugira ñoom umayya bun xalaf ñoom ubay bun xalaf nee na ñooñu kaanu ala ilmin bi rububiyati llahi wa xususiyatihi qaala allahu taala wala in saaltahu man xalaqa samaawaati wal arda la yaqulunna al aziz la yaqulunna xalaqahunna al aziz alim waaw léegi léegi nag fam jëmi mooy ñii ak li ñuy bon maanaam Ahmed li mu bëgg wax mooy ñii ak li ñuy bon lépp Abu Jahlin euh, Utbat ibnu Rabia euh, saf euh, say Umayya bun Xalaf Ubayya bun ñooñu nga xam ni yàlla tëkku ñenn yàlla tëkku na leen ci alquran mu leer nañ ñooñu ak li ñuy bon lépp gëmoon nañu tawxid yi ñii nag ñoom wax nañ wax yoo xam ni euh, wax nañ wax joo xam ni day dàq tawxid rububiyya léegi man lo wax jooju laa laa gisul fenn bu dee euh, euh, jawahir maani gisuma ko xëy na mën naa man gisul nag sama ci sama sama ci sama ñàkk xam-xam xëy loolu mën naa de waaye man de gisuma ko léegi indi na ay aayaat aayaat yi yim indi lam maanaam aayaat yi mooy aayaat yi tegtal tawxid rububiya nee na mu ni bal hada firaun maa guluwihi fi kufrihi yaqulu allahu taala fi xaqihi xaakiyan an musa alayhi salaam laqad alimta ma anzala haulaai illa rabu samawati wal ardi basair maanaam yàlla fi mu waxee firaun yént yàlla Moussa di wax firaun ba firaun ne Moussa yow yii nga indi yëpp jabar la euh, inni la azunnaka yaa Moussa mashuura Moussa ni ko yow Firawn yaa gën a xam ni yii ma indi nii ah amul kenn wàccewu ko ku dul rabbu samawaati wal ardi basaa'ir léegi euh, rabbu samawaati wal ardi yow yow Firawn yaa ko gën a xam kon Firawn fu am na tawxiid rububiyya mu ni mu ni kon Firawn day gën demin waa euh, wàll yu boobu nga xam ne moom nee na euh, moom mooy moom mooy euh, maanaam moom dafa dafa dafa dafa dàq rububiyatullahi azza wa jalla loolu fan la am kan wax loolu mu ni bal hada iblis allain yalamu anna dalalata walxiwaayata walhidayata min allahi taala qaala qaala allahu azza wa jalla qaala qaala rabbi bima axwaytani la uzayyinanna lahum fi l ardi léegi nag moom ah, ah, docteur nee na fa bisal jahlu ah jahlu man yafuuqu jahla almushrikina wa jahla firawna wa jahla iblis man daal lool moom wax dëgg yàlla lii man xaw na maa jaaxal lool lool lool lool maanaam wax ji ban wax lan moo fi am maanaam xam nga man li ma xamoon mooy da indi benn nas daan ni diw moo wax wax ji daal di koy wax muy lu leer nañ nga xam ni wax ja ma nga cay daaneel ma nga cay daj rububiyat allah bu ko defee yow boo ñëwee mën nga ni waaw kii de maanaam rububiyat yàlla yàllaay boroom yàlla muy mu dabbir yàlla mooy alxaaliq yàlla mooy arrafiq loolu sax kii gëmu ko lu mel noonu ñun ñëpp dañuy ànd yoon la kii moom ak kéeféer la firaw na sax nga xam ni musaylimatul kaddaab euh, sax da ngay gis ni moo gën beneen koo xam wante kooku lan la maa li nga bëgg mooy lu lu lan la jotee yi muy wax nii amu fi gisuma ko ci fenn gisuma ko ci fenn fenn fenn ta foo fekk da ngay dem ñu ñu ñu yóbbu la foo xam ni di la di la joxoñ foo xam ni boo demee doo ko fekk néew na lu lu ñuy wax ni boo demee ci fas rabbani ko léegi xëy na kon ban fas rabbani laa la moo moo ban kiiraat maanaam fas rabbani sax ban jawaahirul maani est ce que dafa am ñaar am ñaari jawaahirul maani wala wala la ndaxte léeg-léeg ñu wax wax ju wax ju ñaaw a wax ju garaaw a wax joo xam yow firawna la gën a iblis ak sanadidu quraish sanadidu mushrikin ñooñu di kuñ dem bëgg yow foo jëmati ku ñu dem ba gën léegi nag bu fekkee taksiirul nit te ñii gën la la léegi loolu man firi leen ma lool loolu tamit wax dëgg yàlla moo tax moo tax ma ni moom moom wax dëgg yàlla fokk mu am loo xam ni man ak moom ñooy toog ci biir këram man ak moom daan toog ci biir këram ñu génnee téere teg téereem laay ñu génnee ñu teg man ak moom kese nga xam ni daf may invité ñu benn ma an këram wala ñu reer këram ñu génne téye teg indi jawahir ma añi teg ma man ma ma am na yoo xam ne samay niqaat laay am wax nga wax nga nangam ak ak nangam anam fi jawahir ma añi wax nga nangam nangam anam fi jawahir buñ pare yow ba pare yow ku la ni ku la ni ku moo wax lii yowmal qiyaama bu la yàlla taxawalee taxawal Cheikh Ndiane Chérif Cheikh daan ni kii de def maa tuumaal li ma wax ni waxuma ko yow lan ngay wax lan maanaam lan ngay lan ngay wax booy wax lan ngay wax da nga naan da nga naan téeri da nga naan da nga naan damaa liir jawax bi ma am loolu du loolu du lay loolu du lay sukk ci yàlla abadan bu fekkee da nga téye Cheikh Ndiane Chérif di xas di xas di xas di xas ba yowmal qiyaamati yàlla taxawal la taxawal la taxawal cheikh yàlla ne la cheikh ni kii yaa rabbi kii lu bon lu ne wax na ma ko waaw dama la yow mi ko doon wax lu ñaaw nii li ma gis ci téere bii bu la ko bu yàlla laajee fa maa asa an tujib maanaam sa sa lan la yani ma lay kun jawaabu ko loolu bu ñuy wax jawaahirul ñu ni ñu ni moo ko wax ma ma xas ko ci est loolu dalil la est-ce que loolu dalil la li xujja la bal xujja qaima aleyk laysa laysa lak loolu loolu mooy mooy mooy lënt yi bari lool sax loolu daal wax ak moom ñu waxtaan ci mag moom bu ko defee mu mu ñu gindee ci lu baree baree bari man gis jàpp naa ni yu bëree bëri dana ci am ay ay taraajuwaat yu bëri euh, lu dul bu fekkente ni lii may wax yii may wax ni bokk na ci nga xam ni am na ci ay taraaj maanaam génnee na ko ci génnee na ko ci am na ci yoo xam ni dellusi ci gannaaw mu mu mu leer nañ ñi looloot man bëgg naa ci loolu bëgg naa dal moom xam naa ni am na ci asila yoo xam ni moom dong moo moo ma a tontu. waaw man nag ndeysaan doomam nag sama sama sama doom la eh, Abdou Karim Lo eh, ci man la nekk fii fii ñoo bokk nekk du jóg sama kër dafay ñëw bis mu nekk léeg-léeg mu ñëw maanaam ko Abdou Karim sa papa de ndeysaan gaay gaay gaay gaay dal dal gi dal gi bari na de moom day ree rek moom Abdou Karim laay àndal xam naa ndaxte man ba ma ñëwee Sénégal daaw eh, waxoon naa Fadal Gueye Cheikh Fadal ma ne ko fexeel nga jot nga jot docteur euh, nga ñu ko dama ko bëgg a seet bu ko defee toog buñ toogee mën na ko docteur damaa bëgg nga dimbali na ñu toog euh, ñuy ubbi benn par benn ñuy ubbi benn par benn ñu teg jawaahirul maani teg ndaxte ndaxte wax yi bari na kii day jóg wax fe docteur daal di jóg daal ni lii waxuma ko docteur li na am ku ma indil ni yaa wax li te loolu da ñëw fekk mu ni fàng ci téere léeg-léeg docteur wax loo xam ni dafa naan est-ce que lii bindul bindaluñ ko luñ ko ko wala leen te docteur gisuma téere bi mu mu mu maanaam nit ki boo bindee sa téere li ma gis mooy nit ki boo bindee téere pare téye ba nag da nga ciy ñeme di ko jàngale di ko di ko di ko móol di ko séddale di ko séddale di ko móol si fépp rek bu ko defee yow nga ngay défendre téere bi maanaam téere fépp nga xam ko nga mokkal téere bi nga jàng da maanaam téere bi nga bind da nga koy da nga koy dégg non seulement yaa ko bind wante da nga koy dégg tamit bu ko defee euh, ngir lan ngir mu nekk xujja boo xam ni pour pour ku la ci ku la ci ku ciy di nga dara na ñëw xam nga Buxaari Buxaari ba mu taalifee saxiixam ba pare dafa ni sama saxiix bi saxiix laa wax de waxuma la maanaam li ci nekk muallaqaat léegi mutaabaa bi dafa ni sama saxiix dani sax sama saxiix bii defuma ci lu dul saxiix dama ko def ngir mu nekk sama xujja sama lay sama diggante sama borom maanaam moom nga xam ne moom pare na nee na fàng nii na dem fépp maanaam man Buxaari ku ci am lu la ci lënt ñëwal ñu ñu ma ma leeralal la ko par exemple léegi nag euh, man gisaguma musuma gis euh, docteur toog di def munaqas ci téeréem musuma koo gis euh, te bu ñu toogee man ci saalam te yaakaar na loolu dina ma ko nangul ndax te wax dëgg yàlla man lu baax rek laa ko yéene te xëy na mosu ñoo wax ci téléphone ma nag moom wante jàpp naa nit la en tout cas am na mise boo xam ne ku yaru la ku baax la wax dëgg yàlla loolu nag bu ko defee benn par benn benn par benn benn ma ma yor sama bigal sam fooy muy wax may bu bu nangoo ma enregistré ko may laaj ci téere bi muy tontu bokk na yi may laaj docteur wax nga nangam ak nangam ak nangam lii anamu génneel ma ko fii ci jawaaxir bon mu am ci yoo xam ne bu fekkee mu ngi ci biir jawaaxir te docteur gis ni loolu lu lu lu lu lu lu mbir mu dëng la léegi nag mu jël loolu askane ko Cheikh Diagne Chérif looloot am na munaqasa bu may ci bu may def ak moom léegi kon bu boobaa sama munaqasa ak moom dootul ni mbir maa ngi ci biir jawaaxir xam na mi jawaaxir waaw léegi premièrement kan moo la wax cheikh a wax lii loolu mooy premièrement gannaaw ba nga léegi nag cheikh a ko wax wala bu fekkente ni cheikh ko maanaam bu doon cheikh dafa ñëw daal ni maa ko wax léegi bu boobaa nag mu def cheikh ba ko waxee lum ci jublu maanaam euh, xam nga dafa am ñoo xam ni cheikh day wax am mbir ñu ni kii de firaw na sax moo ëggan demin waaw nga gis même nit ki li même nit ki ci ci beneen téere nga gis téere boo xam ne lépp daa fees jël ak mbir yu yu leer nañ ñi ci yow nga ni yow ah lii de wax dëgg yàlla lépp tawxiid la waaw léegi yow nan ngay boole lii ak lii ñaar yi moo lay wan ni kon lële jubluwu ci lële jubluwu ci yaw li nga yaakaar loolu mooy bu fekkente ni nit ki nee la man maa ko wax nga ne ko léegi nag yow lii fa nga wax ko maanaam xukmu xukum boo xam ni ci façon acte bu bu tooñ bu mel nii takfir bu bu metti yi wax dëgg yàlla euh, metti na ci xol lool yow ndaxte amoo benn preuve boo xam nga tey jii bu fekkonte ni euh, maanaam benn maanaam maanaam man ak Moussa Dione dañoo toog rek ba yàgg Moussa Dione daal di wax benn baat boo xam ni euh, dama ko musa Dione sama séeréer la dama ko yab rek daal di wax ba baatu kufur dama naan ko lii kufur la te asanceewaat ni kii mu génn ci diina ji bu ëllëgee bu ma yàlla laajee ni ma kii lu tax nga génne ko ci diina ma ni ko ndaxte dafa wax dara dafa wax mm, mm, mm, gimiñam sama nopp mu leer ma ni kii moom génn na ci diina ji wante du ma sukkandiku ci ay texte non seulement génnee leen ci diine ji wante ba na ba iblis abu jahlin sanadiri mushrikin nga xam ne ñii yàlla tëkku na leen ci alquran seenu safara kenn waxatu ci seenu safara loolu waxatuñ ko ñooñu nga nga nga nga nga teg leen ci kaw daani ñoom amoon nañu rububiya te yow mii yow Cheikh Diagne Chérif amoo rububiya loolu nag mu boole Cheikh Diagne Chérif Cheikh Omar Foutiyou cheikh euh, cheikh Ibrahim Niass Hakimu Tirmisi waaye cheikh Umar Fouti yi léegi jihaad bi noonu def pour lan la jihaad fi sabili taaxul yaani jihaad ci lan lan ci lan la doon def ci lan lañ ko reye ci lan la doon la jihaate fi fi maanaam fi sabili lan la doon jihaad cheikh Ibrahim Niass yim yim taarif fi sabili maada cheikh Umar Fouti cheikh euh, Hakimu Tirmisi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen loolu laa ne tëb euh, tëb génne xas nit ki tëkkale ko firawna waxuma la sax tëkkale da jël firawna ci kawam ba pare di takfiiru ma kañ ngay takfiir kon kañ ngay takfiir euh, loolu sëñ bi ay musa la yoo xam ni fokk munta nekk munta ñàkk laay wax musa bu bu bu bu sévère sévère sax nag moom téere bi tomb par tomb lañ koy téye yaa ngi dégg bu ko defee nag mu daal ci benn mu génn ci wala mu bañ génn rek mu génn ci yaa ngi dégg wala mu bañ cee génn wante yaa génn gi dana jafe lool ndaxte gis naa ci ay tasrixaat yoo xam ne de wax dëgg yàlla tasrixaat yooyu moom maanaam tasrixaat yi tooñ la bu bu bu bu ndaxte ni mu nekkee tooñ léeg-léeg nga gis mu mu indi benn nafs boo xam ni danaan cheikh a wax li ba pare wax li ci cheikh jublu <laughs> xaar lii mooy gën a day wax ni diwoo ko wax maam da a ko wax ba pare nag la ci cheikh jublu ak li tax mu wax li lépp mu mel mu mel ne moom dafa too cheikh cheikh ni lii laa ko lii laa ci jublu loolu euh, maanaam maanaam incha allah di dina loolu moom euh, dinaa ko sàkku du sax jongante wala ay tiiñalante déedéet damaa bëgg rek téere bi féete bot féete côté mooy lan yii ci nekk na na jox na ma jox ay maraas ya na ma jox ay maraas sànq nekk naa ci ay heures yu baree baree bare nekk naa ci ay heures yu ne daanaka bëccëg ba guddi gi ba mënumaa gis benn nas boo xam ni rek Ahmed loo wax na ko ci ci ci ci taqdis ma ñëw fekk ko ci xëy na am na man maa ko gisu wante gisuma ko moom natteg ni lii bu bu paree may waaw lii mën ngaa waat bu bu àllaaxira yowmal qiyaamati mën ngaa seedeel ca kanamu yàlla ne Cheikh Diagne moo wax lii te yow mën nga seedeel sa bopp yow ah, <laughs> moom Ahmed ci ni moom moo wax li Cheikh Diagne kon léegi li ma bëgg wax léegi du sax di ko raddu wala ma koy wante dafa am ay masuliyaat yoo xam ne dama koy taxdir maanaam ay masuliyaat ak ay responsabilité yu garaaw yoo xam ni daf koo jël ci lu dul nag bu fekkente ne am na ay taraajuwaat loolu kon xaw ma loola bu boobaa da ngay bind benn téere nga def ay maanaam du du du du du problème mu moom ci boppam nga ngay wante nit ki léeg-léeg da nga koy gis nga nga nga nga nga taxdir ko ci ci ci ndaxte nag ñëppay juum juum man jàpp naa ni ak juum ay juumte yu bare bare mi ngi ci yooyu nag euh, bu fekkonte ne dafa nekk mujarrad xata juum mais xata boo xam ni dangaa dugal nit ki ci ci ci ci gàm bu bona bona bona bon firaw nag ni mu bone yaqjumu qawmahu yowma alqiyamati fa awradahum naar la yàlla wax walid ibn almughira ni mu bone sanadiju quraysh sa uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wala tadar lawaaxatun lilbashar loolu lépp alayha tisata achar abu jahlin ni mu bone sanadu zabani falyadu naadiyahu sanadu zabaniya yaa ngi dégg léegi ñii iblis mi yàlla ni ko la am la anna jahannama mink wa mi man ak minum ajmain léegi ñii nag bu fekkente ne dañu da da dañu da fekkee seeni demin dafa dafa dafa ñëw gën deminu seex Ñaan Chérif gën deminu deminu Cheikh Mar Fouti Hakimu Tirmidi ñoom euh, Cheikh Ibrahim Niass sëñ bi bu boobaa nag man wax la joo xam ne wax gënu ko léegi kooku moom foog nga indil ko indil foo te man Euh, la tax mu wax lii gisuma ko fenn man gisuma ko fenn ñu ñu ñu ñu wax ko fenn ba pare man yàgg naa wax ni ba pare damaa yàgg wax ni bu fekkente ni dañuy Oustaz moo wax benn da moo maanaam Oustaz Xaali moo wax ab mbir bind ko te Oustaz Xaali leen man li may jëkk a wax bu fekkee gis naa ni lii kat erreur la boo xam ni dañ koy askanale oustaz xaali li may jëkk a wax du ma du ma tëb tëb dem dale ca oustaz xaali nafs bi ci boppam lay lay radd maanaam nafs bii lay radd nafs bi ci bopp lay radd ku wax wax ji laay wax wante bu ma tëbee tëb da ca oustaz xaali man dugal naa sama bopp ci benn responsabilité boo xam ni est-ce que ci génn ëllëg bu oustaz xaali oustaz xaali taxaw ci kanamu yàlla daal lii musuma koo wax wala lii ba ma ko waxee lii laa ci jublu léegi yow léegi man mii mu les samag lay gu ma war a indi man moom mu mënumaa ñëwaat àdduna di di di defar di defar la ma yàqu léegi nag yow loolu da koy jéem a defar fii bala nga génn àdduna man koy loolu laa wax rek maanaam dafa am loo xam ni euh, nit ñi nañ ci bàyyi xel man duma tëb tëb rek daal ni diw de ku bon la ndax lu dul la koo xam ni dafa wax mu leen nañ ñi mu leer naññ naññ nañ lu amul genn wante loo xam ni am na ay ixtimaaliyaat yu bare bare bare bare nit ki lam wax nit ki xanaa nit di dikk daani wa diinu lillahi xaqan la sharika lahu ma min manata wala al uzza wala laati wax wax jooju nga dégg ko ba pare mu wax wax nga liiral ko leneen loo xam ni yow lënt lënt la ci yow déggoo ko xëy na mu am noo ko firee na ko firee nag noonee nga nga firee ko firee mu moo xam ni tuumaal nga ci euh, moom mi ko wax kon léegi yow ak ak lam lam ko liiraloon nga xam ni lépp tawxiid la ñaar yooyu noo koy boole danga naan fee ab jullit la woon léegi nag dafa murtad est-ce que nga wax loolu loo ko wax da jàpp ni lii nga lii jubluwu ci lu ñaaw parce lu tax ndaxte liiral naa ko ay tawxid kon lii man maa ko déggul walla jubluwu ci lii leneen la jublu loolu noon noonu la ñu dalee ci kaw Mouhamadul Busayri noonu la ñu ci kaw ñu bare bare bare loolu daal nit ki na ci bàyyi xel bu baax a baax bum na ci bàyyi xel takfir nekkul lu ndaw ñu diw ñu diw yéeféer la ñu diw ko ku faasiq la diw nangam la koo xam ni yàlla takfiiru ko nga takfiir ko lu dul nit koo xam ni dafa wax loo xam ni euh, ka yàlla takfiir dafa wax ju noonu loolu day loolu moom leer na moom moo génnal boppam ci diine ji wante dégg ab mbir rek loo xam ni subha la la nga dégg mën naa am jublu yow yaa ko am noo ko dégg rek daa koy génne ci diine ji loolu lu lu lu jara lu jara bàyyi xel la bu baax a baax a baax en tout cas loolu daal man euh, yéenewuma ko ko lii ma gis ci ci téere bi am na ci yoo xam ne yéenewuma ko ko dara ay mbir la yoo xam ne mbir mu euh, jara toogal laaj ko benn par benn man moom wax dëgg yàlla bu ñu toogoon du ko du ko saaga duma ko xas wax dëgg yàlla dinaa ko respecté lool ndaxte nit ki nag lu mu lu mu lu mu lu mu lu mu lu mu lu mu lu mu euh, euh, euh, juum juum juum mu am mu am yoo xam ni wax dëgg yàlla doo ko ko weddil wante nag lii ci téere bii daal moom bu fekkee ay taraajuaat amul moom faw rek musaa alaat dana am moom musaa alaat mun ta mun ñàkk ci téere bi bu ko defee téere bi féete côté bu dul loolu ay saaga ay ay saagaa ci rek ak ay rujuut ay rujuut sax bu ko defee mu randu kee randu kee xanaa duñu damay noppi rek kenn ku rek naa randu kon mooy noppi ga noppi kon kay mooy wa wa yadra'u anha al adaba an tashhada arbaa shahadatin billah innahu la min al kaasibin ko kay alquran la da ngay défendre sa bopp ba ta ba na man bu ma doon moom damay damay défendre téere mais ba léegi fii may waxee yow ni gisuma Euh, gisuma borom téere ba di défendre téere loolu gisuma ko bokk ba ki bu défendre bu bu bindee téereem te téere bi ñëpp li ci dal kenn ku da yow da ñëw nga défendre sa téere danga koy défendre maa wax nangam lii lii la maa wax nangam lii ci jublu te lii la jublu fii laa ko teg maa wax nangam lii la jublu fii laa ko teg yooyu lu am solo la ci téere waaw léegi bu fekkente loolu yow yow mi bind nangoo ma mu ma joxoo kenn majaal pour mu wax ci yow joxoo kenn majaal pour mu laaj la ngay tontu mais ñëwal nga def ci télé devant public bi yépp nga ni téere bi nga indi ay nuqaat teg ay yi nga xam ni ñoom ñooy euh, euh, ñoom ñooy euh, ñoo raddu téere bi àndu àndu ñoo yow kenn ku nekk indi sa nuqta bopp nga wax foo ko teg mais lii mooy téere bi lii mooy téere bi te téere bi buñ nee téere bi ndaxte euh, nee nañ dañ koo taalif du du Sénégal rek àddina bi rek la àddina bi yëpp la àddina bi yëpp la mais Sénégal mooy almaaniya ci ci ci fil mawdu parce que euh, euh, kii wa taalif Sénégal la ci ay ci këru suufiya la la la la sa way jur di ku nit ku baax suufi bu baax a baax sa ay sa ay kilifa kon nag léegi man gis naa ni boo ñëwee euh, euh, euh, dal ay nit dal yu méttee méttee métti ba dal yu métti sax ba wax ay wax yoo xam ni gis ñu ko ci Séné gis moom léegi nag nga ni kon beneen réew la am nga ni déedéet téere bi Sénégal moo ñu concerné léegi nag yow téere bi boo koy liir bul ni buñ la ko wax bul ni am na Soudan bool am bul ni am na Syrie déedéet indil ki ngay wax nit diw ba koy ba tax nga koy nga koy wax wax ju ñaaw indil fan la waxe moom loolu lu am solo la maa ngi leen gërëm leen son